salaamaaleykum waa Médina salaamaaleykum waa Ndakaaru may nuyu waa Sénégal yëpp di am mbégte cette année encore ñu fekkoon ko daaw fekkee waat ko ren ñu si sant yàlla bu baax a baax ñëw nag di leen souhaiter une très bonne année 2022 ngeen may ma ma jiital si le président Macky Sall président de la République di ko ñanal jàmm di ko ñaanal wér-gu-yaram ba nga xam ni dina mën a tette Sénégal encore di ñaan yàlla lépp loo xam ne sumb sumbu na ko muy mbébétam pour Sénégal jëm si kanam yàlla na ko yàlla def mu antu ma siy toftal soxnaam ak ay doomam di si boole Sénégal gi yëpp rek parce que ñëpp benn njaboot lañu euh, ñu may ma tamit ma souhaiter une très bonne année à toutes nos autorités religieuses administratives et coutumières ma siy jiital euh, kilifa diine yi yi nekk si biir Sénégal ñëpp a xam ne ñoom bu Sénégal amee jàmm. dañ si contribuer bu baax a baax a baax a baax baax ñu may ma tamit vraiment ma souhaiter une excellente année au premier magistrat de la Médina mooy le maire de la Médina di ko souhaiter une très bonne année ak moom ak ay njabootam ah du ma fàtte nag ñi nga xam ni ñoo bokk langue politique bi muy opposition comme ñun ah, vraiment ñu may ma ma ràññee si ku mel ni le ministre Seydou Gueye muy sama mag di sama xarit ma koy souhaiter moom à toute sa famille aussi une très bonne année 2022 2021 nag jeex na daanaka waaye euh, amoon na ay tolof tolof yu bëri loolu duñ ko nëbba duñ ko fàtte ndax xam ngeen ni Covid bi ñu ngay wéy di lëmbale euh, dëkk bi dina si dina si delluwaat dellusiwaat ci kanam euh, xam ngeen ni aussi y des événements yu metti biir Sénégal vers le mois de mars ma defe ne état bi jug na si commencé nañ di indi saafara si loolu déglu nañu peuple bi. te defe naa loolu dañ si ànd ak ñoom liggéey liggéey boo xam ni bu mucc ayib la pour que toute la population retrouve le bonheur defe naa loolu moo ñu war te moom la ñuy def ah am na aussi ay kilifa diine ay kilifa aada yu bëri yoo xam ni euh, dëddu nañu vraiment ñuy présenter nos condoléances ak toute leur famille di leen di leen jaale ngir euh, moom ah, si loolu sax dama fàttu sànq may fàttali ni euh, bu ma waxee autorité religieuse wax dëgg waa jàngu bi si la ñu bokk xam ngeen ni ñun dañu am ak ñoom jàmm biir Medina euh, fan yi néew rek demoon naa foofu waxtaan ak ñoom fanaa ñooñu tamit ñi ngi ñaanal waa Sénégal jaadu na ñu souhaité leen aussi une très bonne année 2022 li may terminer nag mooy ñaari appel rek benn bi mu jëm si élection yu jëm ñu ñaan yàlla ñu dugg si bismillahi rahmaani rahim jeexale ko si alhamdulilahi rabil alamin ku gañe euh, ki gañ ki perte woo ko félicité ko ñu xam ne à partir du 24 janvier on redevient ba musul dañ sax des frères et des sœurs def naa loolu mooy am naa ñun am nañ ci yaakaar bu baax a baax baax beneen bi mooy xam ngeen ni Covid bi mi ngi jugaat gis ngeen temps yi statistiques yi joxe mais ñaan population bi yëpp ñu xoolaat les mesures barrières di sol maski yi di respecter la distanciation euh, defe naa loolu aussi lu am solo la pour mën a saafara mbir moom may gërëm ñëpp di leen jox nag tig daje si fan yu néew nga xam damay ñëw janox yéen. wax leen sama programme bi nga xam ni moom laa jébbal waa Médina en vue des élections et pour la gouvernance 2022 2027 jërë ngeen jëf